fanweer ak juróom-ñeent sëllu wurus wa déglukat yu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñetti njàng yi weesu gisoon nañu li yàlla waxe woon ak bànni Israël ca kaw tund Sinaay ci biir safara ak dënnu ak i melax di leen jottali fukki ndigalam yu sell yi gisoon nañu it ni yàlla sante woon bànni israel ñu defar ab rendikaay ci taatu sinaay te rendi ay mala yu amul sikk ñuy sarax yuy dindi bàkkaar lu taxoon yàlla santaane saraxi mala yooyu ndaxte yàlla ku jubla te yoonam wu sel wi nee na ku sàmm yoon wépp waaye nga xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp te ku jàdd yoonu yàlla def nga bàkkaar te peyu bàkkaar mooy dee noonu ndegam bànni israel mënuñu sàmm ndigali yàlla yépp faaw ñu jébbal yàlla ay sarax yu amul sikk ngir lu tooñul dee wuutu ku tooñ noonu yàlla firndeel na ne ku jub la te mënula baale bàkkaar ci kaw jëfi nit waaye ci darajay deretu sarax su mat sëkk rekk tey nag fas nanu yéene wey ci nettalib yonent yàlla musa ak bànni israel ba fii ña nga daloon fa kanam tundu sinaay ca biir màndik ma nanu dellusi nag léegi ci tawret ba gis la xewoon gannaaw ba yàlla jottale bani israel fukki ndigal yi nu ngi jàng ci saar ñaar fukk ak ñeent ci téereb gàddaay ga mbind mi nee na aji sax ji ne musa yéegal fi man ci kaw tund wi te nga toog dinaa la jox àlluway xeer yi ndigal yeeg santaane yi ma bind ngir ñu xam musa daldi jóg ànd ak surgaam yosuwe te musa yéeg ca kaw tundu yàlla wa mu ne magi mbooloo ma xaarleen nu fii ba nu dellusi ci yéen xool leen aarona ak uur ñu des fi yéen su kenn amee lu muy tawat ci ñoom ngeen di jublu musa yéeg ca kaw tund wa te niir wa muur tund wa ndamu aji sax ji wàcc ci tund sinaay te niir wa muur ko diirub juróom benn fan ca juróom ñaareelu fan ba aji sax ji woowe musa ca diggu niir wa melokaanu ndamu aji sax ji dafa niroo woon ak safara suy lakke ca njombaxtalu tund wa ci bëti bànni israel musa dugg ca biir niir wa te mu yéeg ca tund wa musa nekk ca tund wa diirub ñeent fukki bëccëg ak ñeent fukki guddi nanu taxaw fi tuuti ci njàng mi ñëw bu soobee borom bi dinanu gëstu ci li yàlla waxoon musa ci tundu sinaay diirub ñeent fukki fan wante tey jii dina dinanu gis li xewoon ak bànni israel ñoom ña nekkoon ci gàdd ga ci taatu tund wa di xaar dellusik musa nun ñépp xam nañu ne muñ te xaar yàlla yombul ci doomi aadama li gën a yomb ci nun mooy xàddi fàtte kàddug yàlla te aw sunu yoonu bopp noonu li nu war a jàng léegi ci mbirum bànni israel dina am njariñ ci nun lool sax yàlla daf nu bëgg a artu jaarale ko ci nettali bu doy waar bii kon ci saar fanweer ak ñaar mbind mi nee na ba mbooloo ma gisee ne musa dafa tëwa wàcce ca tund wa ñu wër aarona ne ko jógal defaral nu yàlla ju nu jiitu ndax musa mi nu génn réewu misira xamunu lu ko dikkal noonu aarona ne leen tekki leen jaaro yu wurus yi ci seen noppi jabar ak seen noppi doom yu góor ak yu jigéen indil ma leen noonu ñépp tekki jaaro yu wurus yi woon ci seeni nopp indil ko aarona mu nangoo wurus wa ci seeni loxo xelli ko yett ci sëlu wurus gannaaw ga bànni israel ne yow bànni israel sa yàllaa ngi ki la jële réewu misra ndax gis ngeen li bànni israel doon def ay fan yu néew gannaaw ba ñu waxee ne lépp li aji sax ji wax dinanu ko def gis nanu ne jàdd nañu ndigal yu jëkk ya yàlla waxoon na leen ne bul am yeneen yàlla ndare man bu sàkkal sa bopp xërëm waaye lan la bànni israel def dañu dëddu yàlla ba sàkkal seen bopp xërëm lu tax bànni israel gaaw dëddoo yàlla nii ndaxte li ñu bëggoon mooy am yàlla joo xam ne dañu koy gis te di ko laal dañu mel ni nit ñi tànn topp aaday nit ba sàggane kàddu yàlla aji sax ji topp nit ki bët di gis moo gën a yomb topp yàlla mi kenn gisul looloo tax lu ëpp ci doomi aadama yi di weccoo kàddu yàlla gu wóor gi ak xalaati nit yu sësul fenn fu wóor nanu jëm kanam léegi ba gis li xewoon gannaaw ba bànni israel defarale seen bopp nagu wurus mbind mi nee na naka la a gis loolu mu daldi tabax rendkaayu sarax ci kanamu sëlu wurus wa daldi yëgle ne jàpp nañu suba muy bésu màggalu aji sax ji ci suba teel ñu xëy rendi sarax suñuy lakk te jébbale sarax suñuy sante yàlla mbooloo ma daldi toog di lekk ak a naan ba noppi jóg di mbuumbaay ndax dégg ngeen li a defoon mbind mi nee na mu daldi tabax rendukaayu sarax ci kanamu nagu wurus wa daldi yëgle ne jàpp nañu suba muy bésu màggalu aji sax ji ndax loolu dëgg la woon ndax bànni israel mënoon nañu màggale aji sax ji noonu mukk nun xam nanu ne yàlla amul woon benn cër ci màggal gi ñu doon waajal ci lu wér jàdd nañu ñetteelu ndigal li ne bul jëfandikoo turu aji sax ji di yàlla seen boroom ci neen yàlla aji sax ji yàlla yàlla yàlla dafa nekkoon ci seen gémmiñ waaye seeni xol sore na ko lool seen màggal amul woon benn njëriñ lu dul wàccee merum yàlla ci seen kaw léegi nanu àggale nettali bi mbind mi nee bi loolu amee aji sax ji ne musa wàccal dem ndaxte sa mbooloo mi nga génnee misra alag na boppam jàdd nañu xaat yoon yu ma leen tegoon ndax defarlu nañu sa wurus wu ñu xelli ñu ngi koy sujjootal te di ko rendil sarax naan yow bànni israel sa yàllaa ngi ki la jële réewu misra aji sax ji ne musa gis naa ne mbooloo mi mu dëgër bopp la bàyyil nag sama mer tàkk ci seen kaw ma faagaagal leen sàkku ci yow askan wu yaatu waaye musa tinul leen di fexe giifal merum aji sax ji yàlla boromam ne ko yow aji sax ji lu tax sa mer di tàkk jëm ci sa mbooloo mi nga génne réewu misra ci kàttan gu rëy ak sa doole ndeyjoor soo defee noonu waa misra dinañu wax ne bi leen aji sax ji di génne lu bon la namoon ci ñoom ngir rey leen ci tund yi far leen ci àddina dëddul sa mer te bàyyi mu musiba mi nga naral sa mbooloo ne meekul say jaam ibrahima isaaxa ak israel yi nga géñaloon ci sa bopp ne leen dinaa yokk seen askan ni biddeewi asamaan te jox leen réewum kanaan ñu moom ko ba faw noonu aji sax ji daldi bàyyi li mu naroon bi mu waxee ne dafay wàcce musiba ci mbooloom bi loolu amee musa walbatiku wàcce ca tund wa yor ñaari aliwa ya yàlla bind ndigal yi aliwa yu ñu bind wet gu nekk biir ak biti aliwa ya jëfu yàlla la mbind ma di mbindum yàlla mu rëdd ko ca aliwa ya noonu yosuwe mi àndoon ak musa dégg yuuxi mbooloo ma mu ne musa yuuxu xare ngay jolle ca dal ba waaye musaa tontu ko ne li ma dégg du baatu ñu dàq te du baatu ku ñu dàq baatu ñuy woy la ba musaa jubee dal ba nag mu gis sëluwa ak pecc ma noonu meram daldi fuur ba mu sànni àlliwoya toj leen ñu ne tasar ca suufu tund wa mu jël sël wa ñu defaroon lakk ko wol ko sunguf mu suy ko ca ndox ma jox ko bani israel ñu naan ci kaw loolu musa ne aaron lu la mbooloo mi def ba nga sóob leen ci moy gu réye nii aarona tontu ko ne sama sang bu sa mer tàkk yow ci sa bopp xam nga mbooloo mi ni ñu saware ci lu bon dañu ma ne defaral nu yàlla ju nu jiitu ndax musa mi nu génne réew misra xamu xamunu lu ko dikkal noonu ma ne leen ku yor wurus na ko tekki ñu daldi ma ko jox ma sànni ko ci safara si sëlu wi génn noonu musa gis ne aarona bërgël na mbooloo mi rekk ba nara may ay bañam lu ñu ko reewe gannaaw loolu musa taxaw ca pénc ma ne ñi nekkal aji sax ji nañu ñëw fi man bi mu ko defee ñi askanoo ci léwu ñépp dajaloo fa moom mu ne leen aji sax ji di yàllay israel nee na kenn ku nekk rango jaaseem wërleen dal bi ci gii wet ba ca gee teg na ku nekk rey doomu ndeyam xaritam ak dëkkandoom noonu askanu lewi def li musa waxoon te ca bés booba lu toll ci ñetti junni nit dee nañu ca mbooloo ma noonu aji sax ji fàdd mbooloo mi ndax seen jëf ci sëlu wi leen aarona defaral fii la saar wi jeexe ci lu wér bànni israel moyoon nañu moy ku jàdd nañu yoonu yàlla wu sell wi xolu nit bu dëng feeñati na gannaaw lépp li yàlla aji sax ci defal bànni israel gis nanu ni ñu gaawe woon wàcc yoon wu jub wi leen yàlla tëralal ngir topp weneen yoon ngir sàkk seen diinay bopp wan yoon la bànni israel tànnoon moo doon seen yoonu jëfi loxo dëddu nañu yoon wi yàlla tëral ngir bég ci diine bi ñu tëralal seen bopp turu yàllaa ngi woon ci seen gémmiñ wante seen xol sore na ko looloo taxoon ñu dem ba tëggulu aw sëlu di bànneexu ci seen jëfi loxo dëddu yàlla aji dund ju dëggu ji léegi nag lan lanu yàlla bëgg jàngal jaare ko ci nettali bu doy waar bii yàlla dafa bëgg nu xalaat ci fu nu toll ci sunu digganteeg moom xëy na am na kuy xalaat ne man daal meluma ne bànni israel mësuma doddu yàlla bay jaamu ay xërëm yow mi xalaate noonu ndax wóor na la ne mësuloo jaamu xërëm xëy na tëgguluwuloo nagu wurus ngir sàkkal sa bopp xërëm waaye xërëm yemul rekk ci nataal yi ñuy yatt di leen jaamu wante xërëm dem na ba ci lépp loo xam ne dafay dox ci sunu digganteeg yàlla xërëm mën na nekk xaalis walla yére wala yëfu saay-saay wala football wala tele wala nit ni yow sax wala sa aaday maam say warugar diine sax mën nañu nekk xërëm lépp lu wuutu yàlla aji bind ji ak kàddoom gi dëgg gi xërëm la kon nag kan mooy sa yàlla kan ngay jaamu ci dëgg-dëgg yàlla aji sax ji walla ab xërëm ndax turu yàlla ci sa gémmiñ rekk la nekk wala ci sa biir xol am na lenn luy ràññale ñiy jaamu yàlla ak ñiy jaamuy xërëm mooy kàddug yàlla lan mooy sa xalaatin fa kanam kàddug yàlla gi dëgg gi ndax xam nga ko ndax gëm nga ko ndax bëgg nga ko ak sa xol bépp walla bokk ndax danga mel ni bànni israel ñi yàlla waxoon ne xeet wii ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale ndénkaanay nit kese yow nag kan mooy sa yàlla kan ngay jaamu ci dëgg-dëgg yàlla aji sax ji dénk musa yoonam wu jub wi wala dangay wekk sa yaakaar ci sa yoonu jëfi diine ji nga tànnal sa bopp mel ni bànni israel nu mu mën a deme mbind mi nee na mbir yooyu daloon bànni israel misaal ci nun te bind nañu ko ngir artunu nun ñiy dund ci jamono ji lépp mat looloo tax samay soppe nangeen daw xërëm yi maa ngiy wax ak yéen ñi am xel waaye ñi ragal ñi gëmul ñi def lu ñaaw luxuskat yi ak xërëmkat yépp seen añ moo di déegu safara ak tamarax bi seedes nit ñi dinañu ko nangu waaye seedes yàlla moo gën a wóor ndax boobu seede mooy li yàlla seede ci musalkatu àddina si ñëw te may nu xel ba nu mën a xam aji wóor ji kon nag wattu leen seen bopp ci xërëm loolu la kàddu yàlla wax nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen fàttali ne su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis. njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu gëstu ci pexe mi yàlla rabatoon ngir dëkk ci biir bànni Israël te ba tey dëkk ci njubteem yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li mu bind ci mbindam ne wattu leen seen bopp ci xërëm.